Salut les amis de Sport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de vous des likes, merci de vous des abonnés, merci également guy. des bails des commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois di partages et yenn information yi mbokk Sénégal est fait pour la mënti 14 régions du Sénégal ruqu ruqaari gaw gaxaari ñu ngi di jaajëfal ñu nekk également ci lal hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñëw rek jàmm ñu nekk ci kaso nga xam aussi erreur judiciaire ak génne leen defal moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñu dëddu àdduna suñu borom xaar leen àjjana fi doo si gars yi on avance ensemble dans la magie de Sport TV et de Baba l'actualité on continue actualité ñu fas yéene ki donc Sadio Mané bi nga on dañ ko décorer du côté également di donc ni di wa Al Nassr bi ko defal effigie également de Mendy de retour ak également Manchester City champion également du monde donc des clubs bien entendu ki ngeen gis ni gay yi président bu de Casablanca euh, bi nga xam ne fa la Bouly Junior Samb nekk seen euh, président nag dañ ko japp ndax walum euh, jaay ciné drogue ah, nañ ko mën a waxee donc lañ ko daldi jappé jamono ji dal ndax dañu japp ne rek ne bokku na ci ñi koy jaay ci donc de manière internationale sur le plan international par instant ki ngeen gis ni di Simakan ah Simakan mooy le défenseur de RB Leipzig nee mo moom ba mu nekkee xale kenn mo nekkoon idolam muy ki di Mamadou Niang neen gars dañu wax ay Ronaldo yëpp mais Mamadou Niang dal la faune le bougon pendant ce temps ki nga xam donc Sergio Ramos daan nañu fekk Juan mi ci li nga xam donc euh, joueur yi ëpp luñu duggal au 21e siècle hein, donc ci li nga xam ne donc ñi gëna plus toujours ëpp luñu duggal ci ay ay saison donc euh, ci 21e siècle ñi ëpp luñu Google ay saison ñom ñaar la pendant ce temps également Luis Suarez gars signé non officiellement du côté de l'Inter Miami il récupère le numéro 9 Suarez comme ni ko fini donc on a contrat de 2024 la wax naa ko ñu ko prolonger ba 2025 l'international uruguayen qui rejoint bien entendu Kingahan donc, Lionel Messi la Pulga. Pendant ce temps, Sergio Roberto également, il intéresse aussi l'Inter Miami, mais mon nene de décision pour l'instant dal, Magate Barça, Missy Gisbopam donc Barça les

pour euh, Joao Félix ndax actuellement daal jàpp nañ ne waa Barça daal ak seen situation bi nii daal ñu ngi commencé à me ñaar ci euh, forme bu Joao Félix par rapport dans la durée En hein. ndorteel gi war na lu bëri mais durée bi la ñuy daal di xool jamono ji pendant ce temps également qui nga xam mooy Greenwood ni de voir Manchester euh, United pour Barça ak waa Real daal ñu ngi leen convaincre pour nous dire qu'il nga xam ne na Greenwood parce que jàpp nañ ne rek boy bi il a du talent et que aujourd'hui il est en bonne progression Mon mënatul de Manchester dans la fin daal di xew pendant ce également du côté de Manchester ba léegi Lindelof moom nag dañ koy daal di opéré opéré nañ ko sax la ba pare problème de laine la amoon ah blessé blessure bu tout de laine moom fini notre ouvert na tok wer du ko jouer Lindelof le joueur donc mancunien qui ramène également moi donc euh, qui dit Mukiele le joueur du Paris Saint-Germain ou à Milan à daal ñu bëgg ñu àll ko nord nord yi Mukiele nga xam ngeen né ah hein, Paris Saint-Germain duñ ko dal di euh, jaay mais je dis boy bi dafa am talent mais xaw tax man Paris dal xaw ma Paris moy sul na nan xaw ma ñoy dem Paris lu fa xew quoi parlons ça également Tilo Kerer ki mom ken sulu ko Tilo Kerer mo dem il s'est proposé hein, donc du côté du Milan assez pour des Milan AC I day wut euh, défenseur en hein. l'anglais mi ngi fi wax na seni plan mi avancer avancé baax mais aussi tiro kere daal mi ngi fëgg ci bunt Manchester City qui remporte pour la première fois de son histoire son premier hein coupe du monde des clubs les Citizens donc dougu nañ ci gaalu navire booking ki donc Pep Guardiola pour djema a li xam trésor buñu ñu fekk ci yone bi ci terrain yi donc un autre trésor bien entendu dans le bateau euh, du de Manchester City Manchester City bi nga xam moo doon euh, di Fluminense bu Marcelo 4 buts à 0. PlayStation avec des Le niveau était carrément différent et également il y a eu deux joueurs qui se sont fait remarquer, Mouikidi, Phil Foden et Julian Alvarez. Donc en 2023, euh, bien xam de a donc nous Manchester City ils ont gagné cinq trophées majeurs donc dans leur championnat l'été également et la Ligue des Champions de la Coupe du Monde des clubs pendant ce temps également qui Pep Guardiola il vient de gagner son quatrième du Monde des clubs, après le FC Barcelone, après également le Bayern Munich et encore pour la quatrième avec Manchester City. Cours Pep Guardiola. Mais malheureusement, malheureusement également, mais en attendant, Phil Foden est devenu le premier joueur anglais à marquer dans une Coupe du Monde des clubs. Depuis 2008, la dernière personne à avoir marqué, qui joue ah, anglais, Moudio Dougal, Wayne Rooney avec Manchester United. Donc depuis 2008, Amoul Kanen Phil Foden, Nyon Nekoko, mais également Julian Alvarez, gars, il a, il a 23 ans, il a attaque ñett la mais yàgg naa la wax boy bi il est sous côté Il wax ay jout Bellingham ak yëpp booy nañ mais boy bi amul bu fekkee ni trophée la ak performance kii amul lu mu donc moom sax waroon na bokk pour man ci top 3 wala top 5 euh, ballon d'or parce que il a fait une saison exceptionnelle mais également malheureusement pour Manchester City on espère que ce n'est rien de grave euh, ki nga xam donc Rodri nga xam moom lañ tànn sax mu nekk meilleur joueur de la compétition moom dafa génn ci ab gaañu-gaañu Rodri l'international espagnol et pendant ce temps nag gars yi ah, gis ngeen xeex bi amoon fii ah, <laughs> xeex bu amoon à la fin donc euh, de la rencontre, bien entendu, entre King et Kai Walker et le Golden Boy de Fluminense. Un match de Bouham, le le mercredi de Edouard de Mendy, il est de retour, Guy, 5 clean sheets, en donc consécutifs pour au total c'est 10 clean sheets en 18 matchs Kenreg rek moo def mo ëpp lim def ci foofu di championnat saoudien bi du kenn Yassine Bounou bi nek ci clean sheets mo mu nekk ci clean sheets Edward jël ko mu matchs Enchaînés, enchaîné on espère que confiance boo am dina au niveau de la Coupe d'Afrique On est carrément les Edouard Mendy qu'on avait vu lors de la CAN 2022 même beaucoup Raoul raw et c'est une fierté comme je l'ai dit de voir nos joueurs au haut niveau ñun li ma gars ku nek ci haut niveau ñu waxo ku nek également problème ñu la saway li pour gën booster comme on l'a toujours fait mais également Sadio Mané gars yi ku mu ne rek ku neex daagu faj la nobee comme on dit ah Sadio Mané euh, idolâtré Sadio Mané gars yi également dañ koo fan jox ko ca du côté de Al Nassr leen li ñu ko defal mais également Sadio Mané oh gars oh. wala ñu contrôle Sadio Mané bi contrôle passe hein. ah Sadio Mané voilà il il a il a il a de la confiance comme Koulibaly ñoom daal Arabie Saoudite bi daal jox na confiance parce que nekk nañu fa xam ne pression ñi ngi football c'est le football ñi ngi wane seen talent dëggantaan gis ngeen gars yi li ñu ko defaral effigie bi ñu defaral pour Sadio Mané tey rendre ko hommage c'est exceptionnel man de fàttaliku un ah, club bu def lii pour Sadio Mané même ñooñu sol lu xonk li waaw man moo woo man nee naa Sénégal yi laa fara ah. ñooñu sol lu xonk li gisuma musuñu mës a defar Sadio Mané effigie bu mel donc c'est une fierté Papa, wan ko c'est toi le boss c'est toi le roi Cristiano Ronaldo également qui a inscrit aujourd'hui son 51e but mu le deuxième meilleur buteur donc en 2023 derrière qui donc Harry Kane ak Kylian a mi buts au total gars il li information c'est toujours un plaisir de vous servir je vous hommage nous vous rendre Al Nassr également à également la performance de Edouard Diol comme Miro je vous voulez vous vous on avance ensemble dans la magie des e TV bu le bonus nul.